bokki jullit di fi teew bokki tali yi ñoo ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen ndokkeel ci bis bu réy bii di ñaan suñu boroom mu nangul nu jëf yi tey làqal nu ko fu yàq yëgul mu mel ni tey bis la bopp dañu ko daje ngir di màggal xasida yi sëriñ Tuubaa muy bésu xasida mu doon it loo xam ne mi ngi bëgg a yaatu ci biir yoonu murit ñu bari amandoo ci yëg-yëg ci bis mel nii kon saa bu ñëwee rekk laaj na ku ne la cay sa warugar nga jëf ko ci muy wet goo mën rek nga taxawee ko ci ndax liggéeyub Sëriñ Tuubaa noonu lay doxe mu mel ni bu ñuy wax dañuy wax ne xasida yi nu daje tey di ko màggal sun boroom bi mu yónnee yonent yi yëpp ak ñi leen wuutu ci seen gannaaw dafa am lu taxaw mu yónni leen muy yar nit ñi jàngal nit ñi ak fàttali nit ñi yàlla muy at taalimu wa tazkiru wa tazkiya te mooy li sunu maam Ibrahima ñaanoon ci benn aaya alquraan rabbana wab'as fihim rasulan minhum yatlu alayhim ayatika wa yuallimuhum alkitaaba walhikmata wa yuzakkihim mais ni loolu mooy ñett yooyu kon mooy liggéey bi yonent yëpp daan liggéey ñi leen doon seen ginnaaw it muy borom xam-xam yi ak nit yàlla yi loolu rek mooy doon seen liggéey bu ko defee nag yar boobu ak njàngale mais ku ne ak na koy defee ak fa nga koy jaarale waaye xasida yi ñu doon daje tey di ko màggal dafa bokk ci wasaailu tarbiya yi sëriñ bi jëloon moom ngir di ci defar aw nitam bokk ci yoon yi mu daan defaree ay nitam ndax am na fu mu bind ni képp ku aju ci man na nga xam warlu naa sama diggante sama borom ay tawaalif yoo xam ni njariñul jullit yu góor yëpp dina ci nekk ak njariñul jullit yu jigéen yëpp ci àdduna ak laaxira kon waxut sax murit bu góor ak bu jigéen waaye bépp jullit bu góor mbaa bu jigéen sa njariñ dina nekk ci taalif yooyu ci àdduna ak ci àllaaxira loo xam sëriñ bi dellu wax ni lépp lu ma bindoon ci biir li may nekk ci biir géej gi liggéeyal yonente bi laa ci bi la lenn li zikkar la lenn li jihaad la du leneen dafa wax ne diir li tukki ci biir géej gi lépp lu ma bind lenn li liggéeyal yonente bi la lenn li zikkar la lenn li jihaad la du leneen mu teg ca moom sëriñ bi daal ni loolu li moo tax nag ma tere sax ku ko sotti dafa wax ne dir lu mu nekk ci géej gi lépp lu ma fi bind xidma la ak zikru ak jihaad moo tax ma tere ku ko sotti ma nëbbu ko dama ko denc bañ ko ko sotti mu daal ni li ko jiitu woon li jiitu woon géej gi dañ ko nanguwut daal di ku ci bëgg jariñu àdduna ak alaxira na nga farlu ci li ma bind bi ma nekkee gànnaar muy atum baksis na ama seydina bi karamin ak jolof ji ak njariñ dafa wax ni loolu moom mbind yi ma bind jamono yooyu moom kawe na lu dul alquran ak hadis noonu la ko wax dafa wax ni li ma bind ci jamono yi gànnaar ci ak ceyeen ak njareen ji kawe na lu dul alquran ak hadis yonent bi sallallahu alayhi wasallam noonu la ko sëñ bi wax daal di wax ni it nag yàlla nangu na lépp lu ma bind ci diir boobu yi ba tax benn bis mu wax sëriñ ba Bachir ne ko gaal yi ngay gis dafa fees dell ak mbind lépp tagg yàlla la ak julli ci yonent bi ak tagg lépp yi yàlla nangu na ko yonent bi nangu na ko bu ko nit tegutoon bëtit la mu war a jariñ dana ko jariñ loolu it daamat di xam kon mu yeete lool it moom sëriñ bi ci dayoo bu xaside yi am ci ab murit ak nu muy soppee dundub ab murit ak nu mu koy yéegee ba mu egg ci yàlla ndax dafa wax ni tuwassilu aqlaami ila llahi aabidan bila xalwati képp kuy jàmm yàlla sama xasida yi dana la eggale ci yàlla ci lu ngay dugg xalwa te fekk ne nit yàlla yu jëkk yëpp bu ñu masaan di yóbbu ni ci yàlla dañ koy duggaloo ay xalawaat moom mu ne xasida yi mën naa yeggal nit yàlla ci lu muy dugg xam dellu wax ni xattiya yuusilu murida tarbiya li sel jalaali wa murida tarqiya sama mbind danañ eggale murid buy tarbiya wu ci yàlla ak murid bu toll ci tarqiya mu mel ni karaama yi wali yi daan am moo xam dañuy def ay karaama ci tawal mu taw walla saxal mu sax mbaa ñu ñaan muy nangu karaama moom dafa wax ne sama karaam mooy sama mbindum loxo mi karaamati xattu yeddi xeetu jàmm yàlla nit bokk sa jaamu yàlla kenn ndax Zeynul Abidin di daan wax ni nit ñi ñetti xeeti jàmm lañ am na ko jaamu yàlla ak jàmm jaamu yàlla ak commerce day jaamu yàlla am koo ne day jaamu yàlla jaamu yàlla ak ab jaam am koo xam ne jàmm yàlla ak gor lay jaamu yàlla kii jaamu yàlla jaamu yàlla commerçant mooy ki nga xam ne day jaamu yàlla ngir am lu mu cay xeme kay jaamu yàlla am lu ngir am lu mu ragal kooku jaamu yàlla ak jaam ki ñuy jiital aw yat waaye kii jaamu yàlla nag ngir xam magu yàlla mu di ko jaamu kooku sa bi nag foofu nekkoon dafa wax ne wala azal ah budduhu taxtima musuma dañ di ko jaam waaye màggal ko dong nag a na ko jaam bi la ak liggéeyalam yonente bi sallallahu alayhi wa defu ko ngir bëgg daraja mbaa bëgg alal waaye daf koy liggéeyal ngir bëgg jëmm yonente bi lam yuujibil xidmata xubbul asjati dafa am sama liggéey bi bëgg wuru sa xaalis safa may ko def bal xubbu man juida nuura sujjati waaye daf bëgg yonente bi sallallahu waaye nag loolu lépp ànd ak mu doonoon jëmm ju dëddu adduna dëddu goo xam ni du dëddu formalité daf ko daf ko liñ ko mooñaale ak ak deret sax moom sëriñ mu doon ko sàmmoonte ba bantu xat sax muy moytu ñu damm ko ci sàkketu jàmbur mu di ci sol xalima sàmmoonte bu tax yëpp dafa di bàyyi xel ci ab murit mu doon ko rafet jikko moom sëriñ bi nooy lool toroxlu saa buñ ñu masaan woote am daje bu ñëwee tappi ba ca suuf lay dàkk jàpp na ne foofu lañ ko lal waaye dàkk loolu programme la Sëriñ Tuubaa du woon borom xam-xam buy xeeb suufi yi di leen tuumaal ak réer mbaa mu di leen tuumaal ak zandaqa mbaa mu di leen tuumaal ay bidaa déedéet du ko waaye du woon it ab suufi yu nag buy tuumaal boroom xam-xam yi di wax ni yoonu yàlla ak yëg la du ak xam du ci kenn ci bi Sëñ Tuubaa mi ngi ci bokkoon ci ñi jàpp ni boroom xam-xam bi sell ak suufi yu bi sell ñoo bokk benn dayo buñ ndax boroom xam-xam bi bu sellale day jël xam-xam lu bari di jëf lu yem soo fi bu sellee day jëf-jëf yu bari yor tuuti xam-xam mun nag ñoo bokk benn dayoo buñ jëm ñun ñaar ñaar mbooleem loolu xaarifan bi la yëpp ànd nañ ci mu doonoon koo xam ni nit ñëpp da ci daan xool yàlla lisaanu xaalam fu mu day wax ni waqir kabirahum warham sagirahum waraaci fi kulli xalqin xaqa man mooy del sàmmoonteeg àq yàlla ci mbindéef di yërëm gone yi ku la mag ku ne nga wekku lisaanu xaalam jamono bu ne foofu la sëñ foofu daan dund sëriñ bi guddi ak bëccëg yépp mu daan ko jokkale amutoon waxtu noppal wala boog tuuti lañ xamante luy noppal sëriñ Bachir day wax ni gone yi sëriñ bi daan jël ci biir kees gi ñuy bëkk néegu de ku fa am ñaari weer képp boo ko gis da ko yërëm ndax du nelaw du lekk du foofu mu nekkoon nag lu ma di fàttali ko jamono bu ne nag mu tegoon bëtam ci fukk yii fukk yii Ibnu Xayyim di wax ni fukki mbir la yoo xam ne dafa sànk ku ko defee sànk nga sa sa sa waxtu waaye amul njëriñ fukk yi ba ci jëkk mooy xam-xam bu ñu ko jëfewut amul njëriñ moom la sëñ bay jaxate wax ni xam-xam bu déeful jëfee ko sox bu takkulee xam àll boo bañ a bay xam wàcc wecc la loo xam-xamu yiw loo xam-xamu mooy te wàccoo mooy ga faj la loo xam-xamu yiw te doo jëf ñàkk xam tane ko benn bi mooy xam-xam buñ jëfewul loo ca sonn sonn coono bu sànk looy amul njëriñ ñaareel mooy jëf bu selut coono bu sànku la jëf lu mu bari bari bu sellu te mu njëriñ ñetteel ba mooy xol bu yàlla nekkut bu bëgg yàlla nekkut xol boobu sànk nañ ko amul benn njëriñ yaram wu liggéeyalut yàlla sànku na yaram bu ñàkk njëriñ boobu ragal goo ragal lu dul yàlla ragal googu sànk nga ko ndax doo am benn njëriñ naka noonu bépp yaakaar boo xam ne yaakaar lu dul yàlla yaakaar boobu sànk nga ko amul njëriñ xalaat boo jël rek aj ko ci lu la amalul benn njariñ du njariñul tey du njariñul ëllëg xalaat boobu sànq nga liggéeyal koo xam ni boo liggéeyee ba noppi du la fay ci àdduna tey doon nitu yàlla ku ñaakaar payu yàlla ci moom ëllëg liggéey boobu liggéey bu sànq jëf ju sànq la amul njariñ bëgg nit te jëfoo lu dëppoo ak lam bëgg moom mbëggeel gu sànku la ndax mbëggeel gi du feeñ du am njëriñ li fekk jëfoo lu dëppoo ak lam bëgg moom mbëggeel googu dafa sànk naka noonu sànk waxtu waxtu dañuy bëgg waxtu wu ne nga dem dabaatal ci loo weesu woon ci aw yiw war a def dabaatal mbaa nga góor-góorlu ci def ci lu yees loo xamante ne day jariñoo nit ñi tey jariñ dina la mu mel nag suñu borom dafa wax ci alxuraan fa isaa faraxta fansab wa ilaa rabbika farxab jamono bu ne buñ yendoo fii yendoo jàng xasida ñi di durus ñi di yëkkati ñu def liñ man lépp ba jàpp ni jeex foofu lañu war a sóobawaat nag yàlla day bëgg saa boo ba jàpp ni àggal nga la ko waral mooy dañoo dëgmal dund boo xam ne ku fa ni yurub rek loo defoon da nga ko xëy ndax sëriñ dafa wax ne waa arxabul ashiyaa lil amwaati raddun ila dunya ma al nit de bu dee li koy gën a gën a ñor bu gën ko xel muy desaat ci àdduna ak donte ascaala wala suweatan faqat li yamalu saalihatan tanfaahum in xafalu mu daal cee teg moom sëriñ bi ni fartanima baaqiya umrin xadmaba waaye rikk waaye sa dund bi wéy ci lu ak topp yàlla la ca des na nga góorgóorlu rek ba mu bañ a ndax nit kat saa bu ne yëlu pàmmeel la koy la muy jëg bu ñu feneen loo gën a bëgg dinaa naa dellu àddina donte senn caala sax ngir mën a def lu baax kon gannaaw nga xam ni ku sag ruu tàggoo ak saw yaram la lay jëkk ñor muy dellusiwaat ci àddina ngir def lu baax benn yaa ngi daan def lu baax waaye boo ne Europe ba gis foofa nam demee loo defoon da ko xeeb bu fekkee doo def lu baax boo ne Europe da nga xam ne lu baax képp fi am njëriñ ba la ngay gën a xeemee kon muy def delluwaat pour def lu baax nit nag kenn du ko laaj jëfi kenn duñ la fekk mukk nit def ak ak ñu ñun la pourquoi mu def njaaxum yi yow seen nit waaye naka noonu it yàlla du jaawale mukk compte nit ki ak compte morom du fa mukk sa tax alxuraan li mu wax mooy in ahsantum ahsantum li anfusikum lu ngeen def ci lu rafet seen bopp ngeen def te in asatum falaha lu ñaaw it boo ko defee sa bopp nga ko defal waaye defal kenn kon def lu baax moo lekk ak naan ak nelaw ñu dem kenn du lekkaale kenn kenn du naanaale kenn kenn du nelawaale kenn loolu itam ñi fi jaar ba jàll la ca suñu wax mooy tilka ummatun qad xalat laha ma kasabat walakum maa jàll nañ lañ fàgg woon ñoo ko moom yéen li ngeen fàgg lañ leen jox waaye duñ leen jox fi jàmm mu mel ni bërëb bii tey sunu ñëw fi ci bërëb bii ak ni ñu fi daje ku ne ci ñun am na lu la puus nga sàkk pexe ba teg bu dem jotee it da nga sàkk pexe ba dem ak fooy fanaane ak nooy fanaane ak loo fi jëlee ak loo fi jàpp. waaye misaalum suñu dikk la fi ci àdduna misaalum dikkub doomu aadama la ci àdduna dañ fee daje rek ci àdduna kenn am ci kenn bi ngi ñëw kuy dem doo ànd ak kenn ñaari ñëw yi ak ñaari dem yi li ñu wute mooy bi ñuy ñëw dañoo coobare wu ñëw fii ci ci place bi bu dee àdduna nag booy ñëw day mel ni dañ lay góof takk la ba nga demee ñu indi booy dem dañ takk ba nga demee ñëw doo tay sag dellu doo tay sag dikk bu dee fii dikk bi ak dellu bi ci suñu coobare lañ ko defee loolu rek mooy wuute gi bi loolu amee nag kon li war a dox diggante nit ak nit mooy laabirante gannaaw nga xam ne loo lekk ci sa biir la jëm loo naan ci sa biir jëm booy nelaw sa bopp ngay nelawal kon lu ma seq ak yow rek laabire la laabire nag mooy nga gis nit ki mu dëgg ma lu dul noonu nga ne ko moytu mbaa nga gis nit ki yéene ko lu baax nga ne ko jaaral fi laa birante weesul bisimilah mu waay bisimilah lu nekk jërul diggante jërul xulli jërul jërul xel wala mu jëm ci lu ko lor nga ne ko moytu loolu it ak mu tibb ab tibb nga gis ci ak yàq nga ne ko moytu yàq loolu mooy laa birante war na diggante nit ak nit ci benn kaar waaye nag bu dee jàll mu des nag addu adduna day ab société boo xam dañ ko bokk ñu bokk ñëpp waaye diine islam ji ñu nekk yi ab société la boo xam ba tey ñoo ko bokk walbati kuwaat yoonu murit doonaat ak kër goo xam ñun ñoo ko bokk loolu nag dafa am ne lu laaj lu bokkut ak la ñëw la añ boo nanguta añ ma génn ci mbaa mën la moytul boo nanguta moytu ma génn déedéet loolu dafa mel ni ko yonante bi misaal mi ngi mel ni dafa wax ni nit ñi dañoo mel ni ñu dugg ci ab bato ak gaal gaal gi dem ñetti def ñetti étage bii bu kaw la bii nag ci digg bi nag ci suuf ñi ci kaw bu ñuy root dañuy romb ci digg bi pour jël ndox waaye bu ñu gisee waa suuf bi ñuy yàq seen waar ñu naan suñ ah, suñu nekk ñoom seen waar ñu yàq nañ xam ni ñooñee ña ngay alag seen bopp di leen alagaay loolu daa mënti bàyyi xel muy àdduna ñëpp a ko bokk am na loolu boo ko yàqee ñëpp nga ko yàqal boo ko defaree ñëpp nga ko defal dina islam ji noonu deme am na ci loolu boo ko defaree ñëpp ku ci bokk rek defaral nga ko ko waaye bu yàqoo yi ñëpp la yàqu yoonu murid yi noonu deme loolu moo waral am na lool saa bu ko nit defee mbooloo dina jóg tey jël seen ci loxol ko ne ko bu ko defee mbaa bu ko waxati loolu moo waral yenn ci critiquante yi ak weddante yi te nit nag fii ci kaw suuf dafa mel ni dajoon doon nelaw ñu góof ko indi nelaw yooyu nag buñ ko bàyyi day nelaw continue wala ñu yee ko benn ñu yee ko bàyyi bàyyi ko mu nelaw rek te nit ak mala dara doxul ci diggante bi dara amul différence diggante nit ak mala lu dul am xel xel muy muy muy jàpp di wattu wattu li jàpp waaye xelum kese kese nag doyut ndax leeru xel dafa mel ni leeru gis leeru bët bët amut leeru boppam bu mu gisee fokk mu am leer bu nekk ci kanam bu muy mooy fokk jant bi day fenk rek sa bët mën a gis bu dee ak lëndëm nga nekk ci guddi gi biir ab néeg bu bu lëndëm amul benn yendeer boo tallul ab làmp doo gis ak loo ni loo xool ko doo gis moo lay xamal ni kon bët amul leeru boppam waaye dafa am leer gu ko war a génne bu nekk ci kanam xel noonu la demee ak leer la waaye bala ma mën a jàll day gidewu ci leer bu nekk ci kanam muy leeru nëbbu ko leeru yi yàlla yónnee loolu moo waral sën sar yu bari na loolu daan wax doo ngay ni leen murit dafa war dox ci ndigal te bañ a dox ci am xel ndax xel moom bu jógee mën naa jaar ci jaww ji fu ne mën a faa dem waaye nag tànk bu jógee du mën a aw ci fudul aw yoon moo tax mu daal wax ni ndigal te bañ a jëfandikoo xel bañ a topp xel tey topp ndigal loolu la suñu may jaxatee wax ni koo xam ne bëgg na gàllaaj ak alal aku nit na daal di jóg tàbbi géttam bii te moo di ndigal ku tàbbi gétt gi biir ak bitti tàbbi gu wér dootul ci si lor te ab xontam du jeeti asal ki samp gétt gi day wër gétt gi nga fegal bayam yi lor waaye ba yuy génn daf ko jël xarit yëral rëbb baa ngi xëy sufu fetalam jóg romb gétt gi wéy dem yooti rab boo fetal xam ngeen tax rëbb bii jóg romb gétt gi wéy di weesu bay wii li muy gis sàmm de kooral li tax mu jóg weesu bay wii takki téere taxul li tax mu dem rey rab wee ñàkki téere taxul am sanga tax bay wi deewul ñàkk sanga waral rab wee ni jànjang te kenn deewul keray nu waral mat xam kon nit mat ngir mu mat fokk ñu defar am xelam defar aw yaramam ba xel mi ak yaram bi mën a dëppoo defar googu nag mooy jubluwaayu tarbiya bu ñu yar nit lañ jublu mooy defar am xelam defar aw yaram moo tax sëñ Fallou daan wax ne suñu bàyyi ceerno de danoo jàngal bañ ne ar mu yeenu ba nu ni jar mu yar nu bañ ne nër kon yàlla bi mu yebalee yonent yëpp ak téere yëpp yu mos a wàcce daf ko yónnee ngir loolu yi ngir yar defar nit ñi ak jàngal leen ak yee leen waaye loolu it maa waxoon ko ci njëlbeen bi muy rabbana wabaas fihim rasulan minhum yatlu alayhim ayatika wa yuallimuhum alkitaba wal hikma wa yuzakkihim kon yar ak jàngale ak fàttale mooy rôle yonent yëpp waaye mboolem ñi leen doon yi ci loolu lañ nekk kon sëriñ Tuuba wóotewul lu dul li yonente yi woote muy liimaan lislaam lihsaan ñett yi ñett yooyu la woote muy tawxiid ak fiq ak tasawuf moo tax mu wax ni awalu waajibin li jëkk ci lu war ab murid taxsiilu zaadihi min at tawxiid lu jëkk ci lu war ab murit mooy mu fexe ba am ab yóbbal ci tawxiid xabla ishtigaalihi bil infiraadi bi bil jëkk muy wéet di sikar ak di jihaad ak bakkanam ak di tàggat aw nit na fexe ba am ab yóbbalam ci tawxiid ba noppi daa cee teg ne muntahijan mazhaba ahli sunna ma al wa tilka al junna sóobu mun nag day soobu ngirum ahlu sunna wal jamaa daal loolu mooy pakk bi mën a fegal fegal nit lu ko neexal lu muy ragal daal ci teg ni is zulumaatu bidaati ictiqaadi takuffu anwaar atibaaci lhaadi mu ne kat lëndëmu bidaa day fekk leeru topp sunna loolu ni ñu ko mën a misaale mooy nit ki bu fekkoon ab cox mu lekk ci parce que bu biiram fees boo defaroon la gën a neex ci aw ñam jox ko du moo tax nit ki saa bu duyee xelam ak xolam ba mu fees dell ak bidaa sunna du dugg si mukk ci àdduna loolu daa mat di xam ci njëriñam sëñ Tuubaa loolu mooy tawhid sëñ bi mu teg ci ne wa baadahu tahsilu ma yusaxihu bihi furud al ayni fi ma sarrahu ginnaaw bu mu amee tawhid bi noppi nag na ci teg fexe ba am fiq ka tuhri wa siyaami wa salaati wa hajji baytillahi wa zakaati ginnaaw bi nag mu ne bu fekkee dafa bëgg a sóobu tasawuf nag wa ba'dahu yasluku in raamal wusul ginnaaw bu mu amee tawxid am fiq ba noppi nag bëgg a sóobu nag bëgg a àgg ci yàlla na sóobu ala yaday mukammilin yaqfu rasul na sóobu ci loxo yi ku koy mottuli koo xam ne day xëñtu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam yaquluhu bil ilmi wal ibada kama yurabbihi bi tarkil aada koo xam ne da koy womat ci xam-xam di ko womat ci ak jaamu yàlla di ko yar it ci bàyyi aada kon rôle tarbiya bi sëriñ bi waxoon bëggoon ñu waxtaan ci tey jii nag mi ngi doog a duggee foofu ci foofu sëriñ bi waxee ni boo bëggee sóobu tasawuf na nga sóobu ci loxo yi ku lay yar ci xam-xam ak ub jaamu yàlla di la yar ci bàyyi aar kon foofu yi la rôle tarbiya di feeñ ab murit mënta ñàkk ci moom mu sóobu ci loxo yi ku koy yar di ko wan aw yar ndax ni accident yi amee ci tëli yii noonu la amee ci yoon yàlla nit jóg na moo tax sëñ bay jaxat di wax ni ak yegg daa jafe ngir ak ñàkk dog na ñu rëy ñi xam-xamam alal ak mbooloo la gën bari kon yoonu yàlla accident bu mel ni nit tëdd yi dafa nekk ci yoonu yàlla dafa nekk ci yoon li jëm ci yàlla moo tax mu laaj nag ab gidd bu dee war ak yoon moo tax sëriñ bi ne fa kullu man adima cheikhan murshida wa sayfahu seytaane xaytu xaskal wax nit kat bu sëriñ bu koy génnee seytaane mooy ñëw doon sëriñam te bakkan ak adduna ak seytaane ñetti noonu la ñuy noonu doomu ku ne ñoom la mu lay woo boo ko toppee rek te dee def su diggante tax a adduna ak te ñaar rek a fi nekk nag jaamu yàlla mbaa jaamu bakkan leneen amut bakkan dong moo fi nekk di wujje ak yàlla nit ki saa bu jaamuwut yàlla mu nga ca bakkanam bu ko yëgee bu ko lu mu jaamu rek bakkan la teg ba ci adduna ak seytaan sax ay surgay bakkan la dañ ko yàgg waaye ñaari yëf nag jaamu yàlla maa nga jaamu si bakkan seytaane toujours nag dafay digal nit ki mu sóobu ci ngir moo xam ne ñu ko yàqale doon mën na ko woon sax ni ko li araamoon lépp dagal na ko yow ndax xam dafa gis ci lu mel mu ne ko yow Abdul Xaadir man mii maay si borom lépp lu araamoon ci kuréel Seydou Xaalis ni ko a anta allahu alladi laa ilaha illa huwa ixta yahdu allah ni ko yow yàlla bi nga xam ne benn buur du moom bu kenn du buur ku moom ni ko sori mu daal tasaaroo mu daal lëndëm te riis leer bi lëndëm mu ni ko sëg dégg de moo tax nga mu ci ci ma waaye fanweer ñu mat fanweer nit ñu àgg fii nga àgg yàqal naa leen ba ñuy def lu leen neex di mooy yàlla jàpp dañ ne ko diggante fekk dañ ne ko may fekk kenn muy def man maa wax moo tax dañuy bëgg nit ki lu mu doon rek na ca am sëriñ bu koy woon aw yoon ndax am na mbooloom suuf yu mu daan jàmm yàlla jamono Cheikh Abdou Khadre Jilani am ko ñu man gis naa yàlla jëf dan ci sama ñaari bët ko waxee Cheikh moo ne ñu wax mu ñu mun ko yaa ko wax mu ne ko demal nga tuub ba mu tuubee ba ñëw ñu daal Cheikh Abdou Khadre Jilani ni ko ndax dëgg ndax li ma wax dëgg doon di caaxaan si Abdou Khadr daal daf koo gis ci leeru xol raahu bi aynil basira wattasala nuurul basirati bi nuuril basar wa danna annahu raahu bi basarihi wa innama raahu bi basirati mu ne ci basira la ko gis leeru basira gi dafa dem ba jokkoo ak leeru ba gis bi mu jàpp ne ci gisu bëtam la ko gis waaye gisu xol la ko gis fokk rek nit ki tasawuf moo ci rawati fokk nga am ci kilifa bu ko mate ba boo gagee mu gàggante waaye loolu mooy ni way ak dëgër bopp bokk ki way daf koy teg ci xam-xam bu leer bu amul ci naata ki dëgër bopp nag lam jëkk jot da ci naan mën ci luñ mën a wax làkk loolu nag bari na lu yàqu loo xam ne ndax sëñ Hamza sëñ Hamza tamit man xam naa ko doomi sëñ Souhaïbou la sëñ Souhaïbou la daan yare kenn kenn ëppale ko ñun moo nu yar moo nu yar kon ñun xam nañ ne sëñ boo ñëwee ci moom man ngaa jaayante moom daal di nag dinaa jaayante moom waaye nag def ma ko référence lu ma digal ma laaj lu ma tere bàyyi lu ma tere doo ko bàyyi xamoon lañ xamoon mooy da ngay jébbalu si moom bu la digalee nga def bu la tere nga bàyyi te di ko déglu sëñ Saliou daan wax dong ni leen kii ma leen booleel ni ngeen topp ci ginnaaw lu mu leen digal ngeen ko def bu jóomee moo jóom waaye yéen jóom leen ndax yéen leen digal ngeen topp ay ndigal moom bu jóomee moo jóom waaye yéen jóom leen ndax yéen leen def loon def ngeen ko muy topp ndigalam kon li tudd aw yoon mooy sëriñ bii kat mooy sama sëriñ waaye nag defuma ko référence man sama yëg-yëgu bopp lay dox ci yoon si Tuubaa loolu du du aw yoon du aw yoon Sëñ am na ay jamono genn guddi ñuy waxtaan ak sëñ bi sëñ mu ne seytaane day nit ñu bari dañ ko bàyyitul xel te lu bari lu yàqu yàq daal di wax ni sëñ bi day musul na ko ay yoon ci xas de yi ba tari wa bi saqa wa titlu di seytaana sëñ Saaliw Saaliw naan ko omis saqaawa tudd seytaana an kulli ma la tuwa awtaan mun nu sëñ bi da ko muslu ay yoon yoon waaye nit ñi dañoo dem yàq ndax ba ci di soobu di soobu mu jàgg mu jàpp ni Sëriñ Tuubaa weneen yoon la woote wu bokk teg dina islam loolu lépp liggéeyu seytaane nun ay murit lañ duñ ay jullit ku ko waxoon sax te waxal ko sa bopp képp sax baax waaye nag yóbbaale ñu ci yóbbaale mbooloo fekk nga ne Sëñ nga jënd ko woon fekk li nit nekk nga gën leen ci ko sax dugal leen fi ko xamu te lépp ci liggéeyu ndax nit ki mënti nekk murit te dafa nekk jullit ba àgg ci njabootam la jullit ba dem ba ca yemukaay ba mooy nekk murit saadi mu man nekk ak murit dëgg-dëgg yemukaayu jullit moo tax seytaan day liggéey ba àgg ci sëriñ bi wax nga ñëw nii déedéet du noonu lu sax nga ne nan nga koy waxee mooy sëriñ bi di dikk ni man lii laa nga ne ko déet doo loolu lee sëriñ bi dafa wax ni man na abdullahi laa wa a rasuli nga ne ko déet du moom loo ko def yaa xam waaye sëriñ moom lii la tudde ko leneen loo ko tudde lu doon nag ay waxam nga weddi boo ko yëngi ko yëngi loolu daa mën di bàyyi te suñu borom ni mu defee defal doomu aadama xel mu koy teg ci aw yoon noonu la ko defee ay bànneex bànneexi bakkan yoo xam dañoo nekk ci peggam pour réeral lu xel mi rëdd ñoom ñu indi ñu salfaani ko ci pegg bi tey xam dëgg topp ko dafa jafe lu ëpp ci nit ñi bu dëgg nekkee nii dañuy xool ñan la wuñ jaar ci pegg loolu moo waral fii ci Sénégal nii sax dem nañ ba boo war a dem ci ab bureau mbaa tribunal mbaa fa war a dem da ngay lijjanti koo fa xam pour jaar aw ñan la waaye direct ne dañ koy moytu la ko waral mooy dëgg dafa dis ci xol nit ñi dis ci seen bakkan teyit def lu baax moo gën a yomb bàyyi lu ñuy tere bari na koo xam mën naa yenn def lu baax bi waaye benn bu ñuy tere bu ñu ko waxee walla du ko te fekk ne li gën nag mooy bàyyi dañuy tere sax moom ndax seytaane kat la ko alal weesuur yu baax yu bari def na waaye dañ ko tere mu bañ tel doxe am moo tax sëñ bi xabib daana wax ni ko law kaana bil min duni tuqaa sharafun la kaana asrafa xalqillahi iblis bu fekkoon ne xam-xam bu antu ragal yàlla teraanga ngi kon iblis kenn ko ëpp teraanga kenn ko xam-xam waaye laa ngi ko ñu ko digal dañ koo tere dara mu la yàqu ne moo tax ku ñuy wax Sahl ibn Abdullah daan wax ni jëf yu baax yi moom ñu baax ñee kàccoor yi ñëpp maas di ko def jëf ju baax ñu baax ñi ak kàccoor yëpp duñu maas def lu baax waaye bàyyi lu ñuy tere siddiq moo koy def siddiq mooy bàyyi lu ñuy tere tarbiya te mooy defar defar nit ki ba mu àgg ba mu ni cocc dafa am ay moyens yoon yu ñuy jaar pour defar nit ki julli ci la bokk woor ci la bokk wala sax ñooy njiit yi daay wax asaka ak zikkar ak liggéey yooyu yëpp dafay defar nit dox diggante mag ay bon bon bon ñi muy dox diggante moom mooy lan mooy dina ko musal ci ak kéefar musal ko ci ak naafeq wane lu lu dëgg dana ko musal ci ak bokkaane dana ko musal ci ñistal di ko musal ci bëgg daraja ak kilifteef di ko musal it ci iñaan te mooy sa mbokkum jullit am nangam sàngam nga bëgg mu dem di ko musal it ci gis sa bopp ci benn côté di musal nit ki ci rëy ak waru ak bëgg àddina ak topp bakkan yooyu yëpp nii yoon yii ñuy jaar pour tarbie nit ki li ñuy bëgg nit ki mucc ci yu bon bon yooyu bu noppee nag doo ko takkaayoo ay ngëneel na ngeen gi muy takkaay mooy wéetal yàlla tawhid ak tuub sax daak ak muñ ak sant yàlla ak sellal ak dëggu ak dëddu àdduna ak wakkilu ci yàlla ak ragal yàlla ak yaakaar ko ak sàmmoonte ak nangu dogalu yàlla ak bëgg yàlla lii moom la tarbiya di dindi ci nit lii lay def ci nit ci ay jikko bu defee tarbiya saa buñ tarbiya nit ki buñ ko defaree ba mu baax résultat bi dëgg-dëgg ni gën a feeñ ci dana feeñ ci jëfleen diggante bu borom du du du du ko yàpp ci wax du ko yàpp ci jëf waaye day feeñ it digganteem ak mbindeef ci jikko yu rafet ak ànd bu rafet ak yërmande ak warma Sëriñ Tuubaa nag moom façon tarbiya dafa wax ni yonent bi ci boppam moo jàkkaaroon ni ko rabbi asxaabaka bil himma na nga leen yar ci itte wala turabbihim bi dars bu leen yaree am njàngam kese kese daa cee teg ni wa rabbi kulla waahidin bi may ku nekk ñoom na nga seet la yàlla ci ñoom nga yar nga yare ko moo tax sëriñ bi façon boobu ma wax yooyu ma wax yëpp daana nit ñi am na ñoo xam ne ñu leen yar ci njàng ko alxuraan am di leen naa fi am ñum yar ci liggéey kon xeeti liggéey xeeti tarbiya yëpp sëriñ sëriñ bi daana ko ci xeet ko ab yaram waaye sëriñ bi yar yaram dafa yëmtoon rekk ci mbooloo mi ñëw sóobu ci ay loxo ñaari xeeti taalibe fi nekkoon jamono yooyu kii day ñëw jëpplu waaye mënta toog sëriñ bi na ko daan yare daf koy jox ay ay jox ko ay ndigal wax ko lu mu war a moytu dëdduloo ko àdduna yee ko ci yu bare bari bàyyi mu dem ba diir sàngam mu ñëwaat sëñ bi doliwaat ku ñaareel ki nag mooy ki nga xam ne dafa ñëw jox sëñ bi bopp nekk ci biir bi tëdd kooku sëñ bi ni mu leen daan yàlla jamono bu ne mi ngi xool lépp loo mooy ci lu jëm ci sharia ca saasa lay artu boo juumee ci lu jëm ci xaqiqa mooy mooy mooy nga jalgati wàllu tasawuf ca saasa lay artu di ànd ak ñoom ci noonu ci defar googu yi la àndee ak ñoom ñii mu tarbiyee leen ci xaal ñii mu tarbiyee leen ci maqaar waaye bokk na ci façon tëb di am ba tey ci xam gum xam tàyyeel bu nitu Sénégal tàyyeel mu di leen liggéey loolu liggéey yu diis buñ liggéeyee ba wàcc la mu leen di dox ci ay ndigal ak i waaraat ci diggante boobu la koy doxal ndax nit ki bu tàyyeelee du taxawal adduna du taxawal itam ndax nit ku tàyyeel moo tax sëñ bi daan ko liggéey bi jublu ci woon mukk liggéeyloo nit ki ngir jëfandikoo waaye da lay liggéeyloo ngir defal moo tax ay jamono sëriñ Saliou damaa toog jotaay moom ne ko man de damaa gis ne lii ñuy fere ci liggéey bii te mooy bu waree denc ay ëkk nga wax sëñ Modou Amin Thiam ñëw denc si bu ñu waree ji tracteur bi ñeent nit a ko yor bu demee ba mbay bi ñor buñ koy dajale nga woo sëñ Béthio mu ñëw dajale ko bu ñu demee ba war ko bàcc nga woo sëñ Mbacke Soxla mu ñëw bàcc si ma ne ko dama doon natt ni lii de ku ko doon def ngir àdduna boo ko def benn doog ñaar mu ni ma waxuma la ñoom ñëpp waaye kenn ku ne ci ñoom la mu fay def mu ëpp dafay génn kon xam na ko waaye dafa am lu ko taxoon yarub Sëñ Tuubaa ci liggéey bi jubluwu ci liggéey ngir àll waaye ngir defal nit mu daan yamale ñëpp mboolem ñi fi ñëw di tag yow ñëpp a yem ñooy yëkkatendoo di tagaloo ñëpp a ba nga yëg ci sa bopp ni kenn ëppewul moroomam dara lu dul ay jikko yu rafet ak jëf yu rafet bu boobaa nag mu doog a xaajale kenn ku ne mu set li mu gën a yaral mu teg ko noonu daan yare mu demee ba ba ba ba bañ mate ko sëñ daam Abdourahman Lo maa nga fee mu ñu ko jàngale fa borom dër mu jàngale xam-xam Seex Ibra mu yabal ko ma nga borom daal di lijjanti dund donge dund njaboot bi di ko andi sëñ ma dumbe di tàggat ñiy tarbiyoo mooy danañ di boole ba ñëpp yëpp ni kenn ku ne lépp benn kenn kenn këru gën gënuwul si morom dara mu doog a defar nag seet na kenn na la man nag mu defar mu fekk jël ko lañu ñu seetlu woon mooy ku ku fa mas a yaroo boo génnee dana gis ci yow ci ay jikko gis ci yow ci fonk waxtu gis ci yow ñàkk neen waxtu ak melokaan yoo xam ne danañ danañ ca xame ni kii kii fa mu jógee kooku am ka ko ka ko yàlla ñoom dañu daan wane sëñ Tuubaa amul morom ci làmb waaye dañu ko wane ci ay melokaan ku fa ma sa jógee rek da wane ni sëñ Tuubaa amul morom da nga ko wane ci say jëf kenn du jaxasoo di ko nattal. kon xeetu yarin moom yi mu daan yar ba ku fa jógee ñu gis ci yow lu ñuy xayma. moom la yare mag ñi ñu di ko donnante ba sëriñ Saliou moom la yees noonu sëriñ Saliou daan ci nekk te kenn ku ne ak façon ba muy yare aw nitam waaye nag buñ demee ba ca terminus ba nag ñoo bokk loolu moo waral ñu doy loon ba sëriñ Saliou bu yëkkati lu mat ñetti téeméer ñu jox ko sëriñ Saliou ba amee kuy jàmbat naan man samay doom sëñ Saliou laa ko jox waaye joxuma ko sëñ Saliou sëñ Saliou lu ci teg mooy sëñ Saliou moom moo ko jox de moom ma dàq yar dàq ma jàng la muy daj ci nit ngir defar ko de genn waaye sax ëpp na ci façon defar boobu kon bu dee sëñ Hamza nii sëñ Saliou dafa amoon ci moom yaakaar ba wax ko ne ko dama am ci yow yaakaar ngir sëñ Hamza ba ma la tuddee ba ma la ko tuddee daf caa bëgg loolu ba ñaanal lii moo tax ma am ci yaakaar te sëñ am sab tey sëriñ bi neewal na ko jox nañ la daraje Sayyidina Hamza mu daal cay teg nii waaw moom joxe daraj jooju de moom kenn xamut lu mu doon am ci yow de moo tax ma am ci yow yaakaar ne ko it damaa bëgg nga doon jiwu islam ku ne xam na ne aw jiwu lu ñuy tànn léegi sëriñ Saliou bu ñu ba ci mujjam mu yëkkati lu mat téeméer donga ak nangam. wax nit ni ko ndax si xam satum seen soxna bu xam nga ko. mu ne ko waaw. xam naa numéro téléphone mu ne ko numéro bi doyut danga fay dem ba ci ba àgg ci moom bi mu àggee ci moom ne ko sëriñ bi neen dafa ba dafa bëgg a jox ay donga mu bëggoon bu fekkee ne léegi tey jëmput mu bàyyi ba gaaw sëñ xam sa ne ko tey jii mu wax rek ba mu ne kon dañ la ko andil mu ne ko déet maa koy jënd kay ba mu jëlee donge yi man mii la jëkk téléphone ni ma ginnaaw ka daara ji lu ci xew ci lu naqari dinaa la ko wax ci xew ci ma sëñ bi maa jox téeméer dong loolu ak doylu lay tekki ba mu waxee laat jaxate ni ko teñ leen yet ay lal ginnaaw mi ko waaye kon dañ koy woon nu muy tëbbiyaat loolu jarul dañ koy bañ a woon nu muy tëbbiyaat ay gone moo tax jox ko ko noonu ba mu ko waxee ci wàllu dund bi sëñ Amsa ne ko dund bañ ko yóbbulee ay ndab sëñ bi ne ko lii dinaa ko barkeel waaye na ma dimbali rek te defal ma ak ñaan loolu loolu laa jubloo wax ni kon ak doy lay teg goo xam ne la yaakaar ji sëriñ Soxna bu amoon ci moom sëriñ Saliou daf ko dëggal ci jëf mu mel ni kon daara ji mooy façon bañ yaroo woon ci kër Soxna bu yaroo ko kër Saliou la ci jiitu mooy njàngum alxuraan fab xasida di ko jàng ngoon gi jot di ko yëkkati loolu yi mooy yoonu tarbiyawu Sëriñ Tuubaa ak liggéey loolu mooy yoon te lu ci ne nag am waxtu ndax bu yàggul rek kii lijjanti mbirum daara ji laaj naa ko mu ni ma fii nu toll jege nañ junniy xale waaw junniy xale koo ko yore doo sàkku fenn ndimbal doo ko wax fenn lu dul sa góorgóorlu bopp ak nag pas-pas tali bi kooku sant ko ak ñaanal ko ak jàppale ko rek moo yóbbu ak jàppale ak ñaanal mboolem tali bi ko jàpp ci liggéey boobu waaye nag cheikhul murabbi bu ne dafa am lu muy jànkonteel te suñu saa daan jànkonteel loolu lu bari muy yar gone gi ba am ci moom yaakaar ñëw ñu ko pa nangu te suñu saa daan wax ne gone gi de bu ñu ko tàmbalee yar te nopteekuñ nga jël ko mi ngi mel ni nga nga ji am ji nga ji sa gerte ba mu tàmbalee sax nga dem déq gàncax boobu du am njëriñ te yàq nga saa te lépp yàkkamtee ko faral di waral te sëriñ bi daan tere yàkkam daan wax ne wala takun lil fatxi da stijaali li annahu l maxiidu li rijaali bul yàkkamte ak fatxu ndax dafa mel ni mbërëg ci góor góor gu moo tax ci yaakaar jooji ñuy am ba noppi ñu bari di ko tas ci xale yi ñu leen jur damaa toog ak sëñ bi sëñ Saliou ci mu ne ma jënd naa lu ma ñaar téeméeri tracteur ak nangam waaye fi ma toog di wax yow de liggéey bi dara safatuma ci ni ma ndax gone yi ni ñu ñàkk ay safoo ni ñu leen def loolu na ma lool ni ma ni ñuy def màggal jotee ñu demandoo bu tabaski ñu demandoo te wóor na ma ni kore dañ ciy teg te bu ñu doon tàggu sax ñoo ma leen boole ne du ma jaaxal ndax naa xam ne safoo nañ liggéey bi waaye ñàkk gi safoo nañ wax dëgg jaaxal na ma ci daal ni ma sax de naa këyit wu ma daan sukkandiku de muy mbindum sëñ bi ba ma ko liggéeyloo waaye fii ma toog di wax yow tey naa ci jàpp ni liggéey bii dañu ma ko liggéeyloo wut lii sëñ wax na ko ñu dem ab diir mu dajalaat jëwriñ yëpp ñu dem ab diir mu dajalaat jëwriñ daal di soññewaat ci liggéey bi daal di yàlla kon kenn du ko woon ginnaaw ndax ko woon ginnaaw doo xam foo dama bëgg tax liggéey bii ngeen gën see góorgóorlu ci wàllu tarbiya bi jàngum alxuraan bi jàngum xasida bi root bi taxan kenn ku ne nga jàpp yaa ko def bu kenn ma man di fan yi damaa toog yow ngay wax sax ba mel ni dangaa jàpp liggéey bi dina ko liggéeyluwut waaye man li ma gis mooy liggéey bii mu dañ ko liggéeylu xaj na nag li la ci dal mooy lii dal képp kuy liggéey liggéey buñ nangu lam am du ko gis waaye gis nga tarbiya gii li nga ci am néew na kooku ci ma sa am de mu ne asalaam ak ci sant bu baax a baax noonu kon ñuy jàppale ak sëriñ bi ci wàllu gone yi gone yi it jàppalente ak sëriñ bi ci seen jëmmi bopp di góorgóorlu ndax foofu ca koom toog naa am ku ñëw ni ma sama doom jii kat dama ko téléphoné waaye ni mu waxee man eh, ma bëggoon na defaraat ay kayit bëggoon ko defaraat ay kayit xamul lu mu kam àndal ni ma daf ko dugaloon ci école bi muy daw di taxawal bi ko indee fii ci daara ji nag ni mu waxee moom ne ne am na ci moom a defar kayit pour duggaay bi ci école bi nga rek ni ab kaso boo xam ne gone gi mel ni nga waa boo boo ju damay ma na liñ a jàppee waaye xamuñ sax lu muy tekki dëgg kon muñ gi ba xale ba suñ borom àggale xale fa nga ko bëgg àggale baax na ci yaa ngi tuumaal kuréel xasida yaa ngi tuumaal ku ci bokkul rek yaa ngi yaa ngi tuumaal bokk wax ni man ci kuréel xasida yi daal di wax ni ni a silabeer bii noonu la xasida yi sëñ tuwaay gën a alxuraan est ko jàngale ndax loolu du yàq benn yëpp day ay yoo xamante ne dafa di waxtaane ba murid yi xam ni ka koy wax moom la concerné waaye concerné wu tarixa ka bokk ci xam ne ka koy wax moom boppam lay wax waaye waxul yoon mu rek lu ma di la loolu ak yàq la tege moo tax ma ma ma tàmbalee wax ji ci ne seexul murab bi mënta ñàkk fokk ñu yàlla jaar na ci aw yoon ba nga xam ni àdduna dafa am aw yoon ndax waxuma la sax tasawoo waaye oto képp boo ko bëggee jàng dawal te kañ jàngaloo ko da def jëye oto rek boo jekk ci boo ko dawal te kañ jàngaloo da nga def jëye loolu ëpp nay xalaat a wax may wax nag ni wax ji lu bari bari bari tasawuf moom ñetti ngànnaay yi lay ngànnaay muy xaqiida pas-pas bu dëggu ak jëf ju sell akuk mbëggeel waaye mbëggeel gi nag na doon mbëggeel gu tegu ci xam ci xel xel ma tegu ci xam-xam bu mu doon mbëggeelu weñ sëriñ Mour Gelo daan wax ni weñ de weñ wa dem ca soow ma ni ci lapp ñu sepp ko sànni pour pourtant de dafa bëggoon a jariñu dafa xam fu ñu jaar ba jariñu rek moo tax ma ne cofeel gi dëgg la waaye fokk nga teg ko ci xel xel ma tegu ci xam-xam danañ wax ni man de mbëggeelu gi weñ du ma fekk ci dara bëgg mbir ba ni ci lapp ñuy sappili sànni di wax ni weñ de ba muy tàbbi ci soow ñu di ko sappi sànni jublu ko loru dafa bëggoon a jariñu te xamul yoon muy jaar ba jariñu rek moo tax fexe ba xam gi am na ci solo sëriñ bi nag li ma waxal ba fu mooy ba naa diyel baaqi binaa an baaqiya bi xayri hadmin di dinaan raaqi yàlla tabaxal na ma tabax boo xamante ni du màbb mukk di dem ba aljanna li feeg nag pas-pas baa ngi wér jëf ji di rafet cofeel gi di dëggu te tegu ci xam-xam ak xel jërul tiit jërul jàpp ndax li nga taxawal fokk di taxaw ndax wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'lawna in kuntum mu'minin kon pas-pas bu tegu ci alxuraan ju leer mbaa mu tegu ci xadis yonte bu leer mbaa mu tegu ci wax si Tuubaa ju leer lii moo fonde yoon murid lu nit waxaat te bokku ci waxi sëñ Tuubaa ku ne xam sëñ Tuubaa wenn magum yar waxu benn doom waxu ko loolu la moom la concerné waaye concerné wu taxaw loolu daal di def yàlla defal ak dégg ak tuub ak jëriñ di suñu borom mu defal ndimbal te nangal ñu suñuy jëf laqal ñu ko fa yàq yëgul gindil na boppam jubale na boppam jubanti na boppam kon waxtu yu jot na ñu jéem a taxawal julli gi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa